c'est-à-dire xam nga euh, ñëw rek indi propos te xamoo kan mooy wax parce que. non seulement je pense que les Sénégalais le connaissent suffisamment. Euh, te tey jii nii li tax ma bëggoon njëkkee ko mooy après ñu ñëw xëy na li nga xam ne moo nekk derrière ak ñi nga xam ne ils lui en veulent peut-être pour une position yoo xam ne jël na ko dans le passé mais boo leeralee propos yi après dañu mën dem ci loolu loolu yëpp. s'il vous plaît li ma wax léegi sax peut xëy na doy na. parce que yàlla y a le discours il y a le porteur du discours aussi. le porteur sénégalais yi xam nañ ko. c'est le voilà. discours qu'ils n'ont pas compris. le discours. voilà le discours venons-en mais euh, sëñ dafa jël parole jël parole par rapport ak leadership bi nga xamante ni moom moo lay moom lay incarné si niveau suñu parti. Mhm. en tant que notre notre président ñu jox ko mandat quand il s'est agi pour mu dem participer. si dialogue bi wala mu bañ ci participer il a posé le comme il a l'habitude de le faire ñëw directoire national ni qu'est-ce que vous en pensez ñu jox ñu ñëpp ñu débattre après tirer une résolution sanctionner ko par un communiqué nous allons participer au dialogue national mm-hmm. bi mu jëlee parole qu'est-ce qu'il a dafa indi alxuraan indi aaya ba tëjee ko fa isa azamta tatawakkaltu alallah ak lu mënta am na nga dellu si yàlla gëm yàlla ba pare jël une décision parce que dafa wax aay ba pare ne tawakkaltu ala daal ni monsieur le président au terme de ce dialogue là na nga gëm dóor en tenant compte de de ce tout le monde a déjà dit mot pour mot mais en tenant compte de tout ce de tout sa que euh, on a on, a déjà dit mm-hmm. je pense que kooku mooy la nit ñi tronqué découper ko nu mu leen neexee. Mhm. parce que il a amené il y a trois phases trois étapes. waaw discours am boobu dafa indi aaya parce que lu mu wax da koy justifier. Mhm. je pense que y a pas plus véridique que nga indi aaya alxuraan nest pa pas. Mhm. bu indi loolu daal di indi moo bi nii na nga gëmm dóor cest à bu ñëpp waxee échanger il n'y aura jamais de consensus ne nous trompons dina am ñu wax li ñi am wax li mais il va falloir que mu gëm parce que bu xoolee ku si nekk li nga wax mu bëgg tenir compte si sa kii il est l'arbitre suprême il doit trancher mm-hmm. mais en faisant fi des propos des appréhensions des uns et des autres mu ne ko kon euh, monsieur le président gëmal dóor en tenant compte de tout ce de de tout ce que tout le monde a déjà dit mm -hmm. je pense que loolu bu ko waxee mooy euh, monsieur le président teniral compte si li nga dégg fii pour trancher. Est-ce que c'est pas les mots qui sont violents dans ce contexte bi nga xam ne justement euh, voilà on y avait des craintes par rapport ak l'avenir euh, le futur jéemuma ko corriger euh, xalaatuma ko sax mais je veux dire entendement bi nga xam ne ñenn ñi dinañ ko ci am parce que bu ñu demee ba ñenn ñi am fitu jël loolu di ko génnee ça veut dire que ne mën na am effet bu mu def ci ñi koy dégg. mais c'est très sélectif parce que wax naa la les trois temps de son oui. fi muy waxee ak fi mu conclure ni na tenir compte si. malheureusement loolu yëpp feeñul ci li nga xam ne. am na après mais c' est parce que aussi moom awa ah nous sommes des au Sénégal. Mm-hmm. nous sommes dans le terrain politique. où l'adversité aussi vraiment dafa egg si ay proportions yoo xamante ni c' est parce que finalement dootuñu wax suñu digganteeg yàlla. Mm-hmm. dañuy wax comme on veut mais mënuloo jeter la vindicte populaire une personne de la dimension de non mais li ma la wax trois niveaux de légitimité moo tax ma doon indi. kat mooy sëñ mhm. trois niveaux de légitimité yooyu ma la wax. est-ce que une telle personne. de cette dimension de cette trempe là est-ce que kooku dina wax gummal dóor c'est-à-dire nit ñi ñoo ko jox un sens péjoratif. boo leen nit ñi tey jii nii vous pensez à qui parce que ñu bëri ils se disent que euh, sëñ Mansour nii xëy na am na ñoo xam ne am na lu mu seqoon ak ñoom dans le passé ils ont essayé tey de se venger euh, ci propos yi ba koy relayer parce que boo seetloo euh, fi ñu koy relayer fi muy jógee fu nekk xam nañ ne ñu si ëpp ci camp Pastef que coalition Yewwi yoo xam ne jëloon na ko mais loolu pour man bu fekkee du ma du ma nag. Mhm. mais parce que Pastef est incarné par des leaders. ces leaders là dégguma ñu wax ko seeni sujet nag seeni subordonné. oui ñi ngi wax ñoo ñooñu lay waxal nag mhm. aussi. parce que sëñ Mansour li mu wax c'est très clair. et politique dafay exister dans le temps dañ koy passé aussi mën nga ànd ak nit tey. suba ngeen nekk en désaccord rappelons que ni sëñ mhm. Mansour en 2012 il est membre fondateur de l'alliance Benno Bokk Yaakaar lan moo ko fa jëlee sa liberté de ton et d'action mhm. euh, bi ñu demee 2012 élection présidentielle ba fal le président Macky Sall actuel président de la République mais élection législative ñoo toog 4 mois ou cinq mois après mais dafa président bi mu ko wooyee dafa ni ko monsieur le président bàyyi ma ma dem taxan mhm. ma dem peser sama bopp c'est c'est-à-dire c'est mon premier exercice ouais. Euh, politique pour en tout cas dem à la quête des suffrages pour sénégalais yi bi mu demee y a eu mm-hmm. ñëw ouais. collaborer ak Macky Sall mais acte trois de, de la décentralisation sëñ Mansour abstention la voté pour l'histoire mm-hmm. te boobu mi ngi Benno Bokk Yaakaar euh, référendum 2016 boobu génn gu ñu Benno Bokk Yaakaar ñi ngi Benno Bokk Yaakaar sëñ Mansour ak l'ensemble des militants de Bessignac ont voté non. Et pourtant, il a été mis en minorité. À chaque fois qu'il s'agit d'une question cruciale qui intéresse le Sénégal, une question nationale, Sëñ Mansour woo na ñun njabootam constitué par le directoire national laaj ñu ni tel problème se pose lan mooy seen xalaat ñu wax ko mu wax xalaatam mais parfois Maodo. et je le jure parce que Sëñ Mansour souvent il est mis en minorité dañ naan suñu maanaam d'accord ñu ak yow mais c'est un démocrate. Mhm. il l'accepte. mais muy ci benn bokk yaakaar. mu ci yeewi askan wi ce que certains ne comprennent pas. mooy que nga bokk ci benn kuréel boo xam ne. Mhm. Euh, li ñuy décider xëy na contradiction yi mën na feeñal interne. Mhm. mais après nga jël benn décision boo xam ne daf lay daanaka exclure euh, ci ci kuréel googu. mais à tort raison nañu garder toujours suñu honnêteté intellectuelle.